mel nii li ñu dese ci temps euh, bariwul benn question xam naa moom la ñu tëjee muy Boy ñaa euh, donc euh, Boy Niang daanaka li nga décortiqué lépp décortiqué nga ko sànq tout li ma bëgg a wax rek mooy avenir Boy ñaa ëllëg ndax moment bi Boy Niang fan fan mooy ëllëgam moment bi parce que taxaw na ginnaaw si tey daan naa Balla Gaye yaakaar naa loolu lu du lu ndaw lu rëy la parce que tamit Balla pas mal gis nañ li mu def li mu doon def yépp def na ko marqué na empreinte am ci làmb ak lu mën a xew tey Boy Niang ñëw tey terrassé ko ci façon bi avenir ki nga xam ne moo di Boy Niang Boy Niang je crois que ni nga ko waxee nii moo di euh, xam nga booy booy dem ci combat da def du benn benn plan boo xam te ni tey euh, su ma daanee fan la may yóbbu nga préparé deux trois lutteurs su ma daanoo fan la may yóbbu nga préparé deux trois lutteurs donc ak ñoom je crois que seen encadrement ñu ngi def loolu dama xalaat dama yaakaar parce que nit na la war a bindee comme sport football match su ma jógee bii ci bee lay dal su ma jógee ci bee lay dal làmb aussi toll na foofu donc mais boo ñu génnee am supporters yi xam nga li ma sax làmb supporters yi ñoo koy tëgg léegi. supporters yi ñoo koy tëgg ñoo koy tëgg donc su bu diggee tey commencé nañ commencé nañu coow bi parce que bu Boy Niang automatiquement laaj na Modou Lô mais laaju Modou Lô boobu stratégie la toujours parce que tant que le promoteur désisté wul. ou bien le CNG pousse les promoteurs à désister entre Ama Baldé et Modou Lo le combat ba léegi demeure donc ba léegi moo tax am na la mu yàq am na ñu defar mm-hmm. tey bu mu Lo ne combat boobu yàqu na mm-hmm. ne jël Boy Niang donc diggante Boy Niang Ama Baldé xajam na waaye ce que ça fait déjà mm-hmm. donc il faut que ñoom ñu leen encadré ñu def ndànk dal tey woowaat xale yi ci ruq ni leen Modou Lo ko fi bàyyi ko fi ba même quand Modou waruñ ci wax parce que bu ñu ci waxee loolu mooy indiwaat beneen cas cas boobu nag moo di Boy Niang na toog ak istafam yooyu je connais bien Bourkhane c'est un très bon manager donc jàng na seen intellectuel donc moom ci boppam rek war na man a toog ak Boy ñaa jox ko orientation. d'accord du camp de mu Lo aussi la même chose. mais du camp de Ama Baldé aussi ñoom une union une rebelle parce que déjà am nañu combat kon di Gris mais ba léegi le combat ba léegi moo moo moo jiitu tant que le promoteur taxawul ne combat boobu amatul si annulé Modou Lo il e libre donc il est libre Ama Baldé mën na ko défier waat et loolu mooy logique qui donne à la chance à un autre promoteur mu jëlaat combat boobu mais sinon bu fekkente ne jël jëluñu joxuñu démarche boobu ba mu yàqu Boy Niang warul wax diggante moom ak Modou Lo. bi des nag ay adversaire mbariwul Bombardier mu ngi parce que mi ngi waaj a génn. Euh, euh, Gris Bordeaux bu jógee ci Ama mën na ko paas Boy Niang. Sa Thiès mën na jaar revanche am. mën na ko jox revanche. Tapha Tine mën na ko jox revanche. Euh, comment ça s'appelle Reug Reug bu génnee ci combat bi. mu génn ci ñàkk génn ñoo ñëpp ay adversaire lañu mais li ma jaaxal euh, Reug Reug ñëwoon na keroog dafa mel ne xaw na ko dooleel foofu euh, ci ci ci jour làmb gi wala wala ko bàyyi ko xel Reug Reug ñëw na yëngal xaw leen ko xaw ko dooli dooli est-ce que yooyu du xaw a euh, du xaw a xaw a ñagas non je pense pas xam nga l'aspect sportif léeg-léeg da ngay ñëw rek perte benn camp supporter yi bu xaw ñu xool yëngal rek dem foofu ah. non tu le fais comme ça mais un Reug Reug tey man je sais que avec un bon encadrement nga jox ko euh, nga jox ko Boy Niang dafa war a bëri. mais le problème le son manager il habite Pikine pas là c'est son c'est son manager voilà donc yooyu non c'est pas compliqué. gis nañu mu gis nañu Ousmane Diop di ñu ànd ak euh, di ànd ak Balla Gaye et pourtant il est de Thiaroye waaw hmm. donc yooyu yëpp c'est des yooyu sport la <laughs> tey kuñ ci dëggal làmb dañu war a mën a bëri parce que xaalis 100 millions ma doo ko may du ma la ko may donc dañu war a tey ku ñu ko jox 100 millions demal nga bëre ji mu jeex kenn daan kenn daan mbëre ki nga ngeen ànd. jeex na jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi yaakaar naa li ñu jagleeloon ci waxtu euh, daal dinay jot xanaa dañuy jox coach rek euh, euh, mu tàggatoo yaakaar naa dañuy ànd ak moom nag ci wàllum sport fu mu mënta doon incha allah daañu mën a ànd ak moom di décortiquer li nga xam ni moo di ci wàllum sport rawatina rek tey ñu ngi waxtaanee li nga xam ni làmb waaye nag ko xam football la bu ñëwee ci côté football nga jàpp ni loolu rek la xam bu ñëwee ci làmb ji macha allah muy ñaari casquette yoo xam ne da koy doxee coach santaat nañ la gërëm la looy tàggatoo mooy li may tàggatoo rek mooy comme que di ma ko làmb la ñuy wax et que tout temps man euh, institut maire bi lay wax rek mooy euh, le CNG euh, war nañu def ay jàngat un bilan de de des trois mois yi ñu def nii. de évaluation avant que yeneen combat di ñëw ñu mën a génne at ay circulaire mën a tegaat mbëri dans des condition mm-hmm. meilleures que yi xam te ne moom la ñu gis ci grand combat yi ñu gis nii mais bu dee xale yi pratiquement amul problème. mais mag ñi sincèrement y a des problèmes nga bëri pare ñu daggal la 3 millions 4 millions mais c'est pas intéressant donc il faut que ñoom aussi ñu protéger les lutteurs protéger les promoteurs protéger les amateurs parce que guddi bi ñuy guddee du yoon ci làmb géew bi ni ñuy mel c'est pas ça donc la liberté de de circulation au niveau de l'enceinte dans l'enceinte aussi xam nañ ko ñu bari noonu moo tax lu bari day day am ci làmb ji euh, mu am ay coow ay ay xëccoo ay xolo yooyu yëpp waral donc nit ñi dañ dem ba nekk sous donc il faut que ñu jëm aussi ñoom defaat beneen formule d'échange di mën a gën a mettre à l'aise l'ensemble des des acteurs de la lutte mm-hmm. comme ça euh, lamb ji gën a jëm kanam ah parce que on aspire à aller vers euh, la fédération donc il est temps que ñu gën a waat encore di gën a rendre professionnel euh, la lutte donc je vous remercie jërëjëf jërëjëf mbokku téléspectateur jërëjëf euh, mbokku téléspectateur yu jàmm ji info ak euh, Omez euh, TV notre doyen Omez dégg ngeen ko ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne décortiqué na ko waaye tam ci diggante lamb ji nga xamante doxoon na la 1er janvier ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy ñaa 2 te Boy Niang 2 am ndam ci kawam donc mu décortiqué décortiqué bu am solo kon ñu ngi lay santaat bu baax a baax di tàggu suñu mboolem téléspectateur yi nga xam ni saa su ne itam daañu koy doxalee nii di nuyuwaat ci wàllu cadrage bi. ci caméra bi aljuma saw ci liggéey bu am solo bi présentation présentations Mountakha di leen jox dig daje ci beneen jotaay ba beneen yoon